waaw kay Modou Faye ngi noonu doon nu indil euh, ndox mu nu mën a xéwloo ci altine ji ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku fi yéen mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci première chaîne de télévision privée du Sénégal nous avons le grand retour de notre très cher ami euh, Papa Ndao qui signe son comeback et aujourd'hui qui est parti dans la ville de Kaffrine à la découverte du Sénégal toujours euh, aujourd'hui il vient nous parler d'un dara qui a une méthode On va essayer de comprendre ce qui nous amène la surprise à ces merveilles. C'est pourquoi nous lui faisons totalement confiance en ce qui concerne cette astuce. Bonjour et bienvenue dans le Good Morning comme ni ñu koy defee li ko dalee altine ba aljuma euh, ànd ci ak euh, altine bu jot euh, Alaaji Daam Ndaw bërëm du kumaan sànnee na ram faxa mhm. tey nag mu fas yéene waxtaanee tuxal gi ñuy tuxal yenn mécaniciens yeeg menuisiers yeeg tôliers yeeg artisans yi nga xam ne dañuy nekk daanaka ci mbedd mi am na ay dogal yu jug yenn commerçant yi it yi nekk ci ambulant yi tuxal nañ leen waaw ñu ngi waxtaan ak yow nga ni nga ni jàkk sa téléphone bi rek moo tax kenn du la gis waaw kay noonu la bàyyi leen téléphone bi ngeen koy télé bi voilà loolu dafay éviter euh, yenn programmation mu mu mu mu nauséa voilà Ibrahima euh, Valor euh, Babacar Babacar maanaam Ibrahima Babacar Valor moom mooy Varor oui euh, Babacar Varor mooy suñu invité ngir waxtaanee wàllu artisanat fii ci Sénégal ak guddi yi ñu toll waaye moom dafa bokk ci kuréel gi nga xam ne dañuy ànd ak euh, njiitu réew mu Sénégal euh, su ma juumulee artisan patriote MONAP si je ne me trompe pas. Mm, donc moom la ñu dalal tey mooy suñu gan mu ngi ci jotaay bi. ngir daan waxtaanee yi nga xam ni moom moo di déguerpissement bi am lees ci mën a séentu ci ay politique nees di mën a def ba nit ñi mën koo jël avec philosophie pas avec dënn toutes ces choses là on va l'aborder est-ce que dina am impact réel si liggéey bi wala dundinu Sénégalais yi toutes ces choses là on va en parler dans l'émission dans quelques instants on va commencer par les salaamaaleyk alaaji maa ngi lay siyaar alaaji maa ngi lay dool nuyu di nuyu ñii seetaan saa su altine jotee jàpp aljuma ñun ñu fi toog altine ci good morning ci émission matinale u 2STV Euh, di nuyu invité euh, techniciens yi nga xam ne ñu ngi ñuy accompagner saa su ne bu rafetee ci ñoom la di nuyu suñu invité bu baax a baax a baax di am mbégte di ko tewal fii nii di ko teertu fii nii di bokk ak moom plateau bi fii di nuyu Momar moom xam naa ne moom day daw rek ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñaaw na waaw ñu koy nuyu bu baax a baax alaaji wër na yàlla loolu ñaaw di nuyu depuis États-Unis di nuyu donc ñoom tamit di nuyu Moussa Danfa nga xam ne saa su ne Aydara war naa koo xam waaw si ñoom dañuy teewlu good morning bu baax a baax a baax Père Talla Gueye da koy teewlu euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax euh, Imam Ndiaye donc Imam dara dafa nekk ay kilifa yoo xam ne saa su ne bu ñu defee good morning ba pare faaw ñu gis la mbala ñu envoyé la message mbala ñu gis ku la xam ne ko neel seetaan naa seen émission bi tey. Mhm. surtout concept bi nga ko defee mu nekk lu leen neex ñu ngi nuyu aussi docteur Massamba Gueye moom nga xam ne du jóg di ñu di rafetlu concept bii nga xam ne def nañ ko ci good morning par rapport ak ni ñu ko jëlee thèmes yeeg yooyu ji ginnaaw loolu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan jàmm senegal lii métti na nag du mënoon ngaa jaar ci kanam rek dara du ci du la <laughs> ci. jaajëf mel ne wàllax njaan de. on dirait le wallax njaan la maison Jankozil Dieye maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu bu baax Ndeye Binta Diop Mouhamadou Fadal Diagne mention spéciale à toi salaamaaleykum à Abdoul Aziz euh, Ndiadé maa ngi nuyu euh, Ibrahim Diallo bonjour à vous à toutes ces personnes qui sont en ce moment en train de nous regarder sur la page Facebook de 2STV l'officiel et qui d'autre Pape Issa Fall écrivez-nous un message de bonjour on verra si quelqu'un nous regarde on lui fait un petit coucou avant de démarrer alaaj nuyu nañ la <laughs> euh, nuyu waa Ngaan Sayer yëpp balaa mu leen di nuyul boppam nuyu waa Gane Sayer yëpp di leen wax ne seen doom ji moom wax dëgg yàlla. jàmbaar la daal. alaaj nuy naa man dëgg maa dégg ma wax dara. ah man dama dama laa nuyu rek. Mouhamadou Massali <laughs> Massali maa ngi lay ziar ba. di nuyu suñu invité yow jaaral nii kii mooy génn télé di nuyu Alaaji Daam da nga fi yàq dara rek. Alaaji dama jaaral nii kii mooy génn. Uh-huh. voilà dama ne woon si àll bi juste rek pour pour pour bégal. tur nga xamante ne ñooy waa ñooy <laughs> waa 2STV yi kii non xaaral bàyyi ba kii. lii xew télé bi télé la mën a xew. <laughs> alaaji maa ngi lay nuyu maa lay suñu invité bi di nuyu alaaji daam. Euh, te da ngaa demoon ci benn daara. waaw absenté bi la ko waral ak Pape Sidi mooy indi. élément bi bu baax. bu am qualité bu bu extraordinaire macha eh allah lépp rek ngir téléspectateurs yi nga xam ne ñoo safoo. lay du jeex lay loolu la nag te di ngeen xam dara bu sama yàlla. après quelques jours yi ñu jëm si kanam di ngeen xam dara bu sama yàlla. maa ngi nuyu ñëpp Pape si di nuyu waa Kaolack particulièrement waa Nganseer comme ni nga ko waxee léegi léegi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk boobu ne di feddal sama colère ak ñoom mais tamit di nuyu ñi nga xamante ni ñoo safoo 2STV mais émission matinale bi nga xamante mooy good morning ak lundi bi nga seen semaine de travail maa ngi nuyu ñëpp Pape Sidi Pape euh, di la wax yóbbante waa xombal dimanche passé fa laa nekk xam nga ziyaaru kii bi njabootu sëñ Mansour Sy bi samedi bii la woon. waaw donc à Xombal ñëpp ñu ngi lay nuyu Pape Sidi. maa ngi leen di fay bu baax waa Xombal macha allah maire bi maire bi maire bi Magay Boy. Euh, am lu am extraordinaire yu xew këram may la mu tuuti rek. am na benn image bu ngeen gis si si Facebook bi wala si kii bi euh, Jibi Gueye ak Antoine Diome. Mhm. ñu laxasoo waxtaan affaire mel noonu. Mhm. mu ngi xewoon biir kër maire Xombal Magay Boy. mu nekk image boo xamante ni macha allah nit ñi am na nu ñu koy waxee mais demul noonu c'était pas prévisible. dañoo fa taji waxtaan kafante ree ñoo bokk dëkk ñoom ñaar ñoo bokk dëkk au delà ñoo dëkk sax ñoo mbokk lañ sax ndax il paraît que maamu Antoine Diome su ma lañ lañ lañ tuddee jibigee donc ñooñu mënuñu def lu defal lu rafet surtout su bis boo xamante nii bisu bisu diini la euh, Habib si mu sëñ Mansour si teewee ko njaboot Tiwaawan yëpp teewee ko donc lu rafet rek moo mën a xew foofu macha allah donc nag ñu ngi gërëm nag magay bi magay bi magay booy bi xamante nii mbir mi ci këram la xewee woon mu fi dajale ñëpp macha allah keroog xambal foo toll baatu laa ilaha illallah ngay dégg mu doon rafet loo xamante ni pap nee nañ ma yëbban ma yëbbante la jox naa la ko donc waa xombal mag ay booy yëbbante baa ngi noonu jox naa ko Pape Sidi donc ñu ngi lay félicite baax a baax. di jaam magay félicitation. di félicité ñëpp ñoom Antoine. Euh, ñoom ñëpp macha allah ñu neen réew mi nag xat na xatin goo xam ne koo dàq rek mu dellu ci bokkam. Mm-hmm. waaw absolument ku dellu ci say bokk jaxasoo mm-hmm. wala duggante am. Mm-hmm. moo tax booy bëgg nit bëgg ko dànk. absolument booy bañ nit it bañ ko dànk ndax ëllëg du añ du reer waaye dañ koy defal bool. ndax mën na laa bettee nu ne. ay coowal politique moom fii leen ko fekk te xam naa ne dana dellu yàgg wàcc ko fi rek euh, ñu ngi siyaar bu baax Serigne Habib euh, moom Serigne Mansour di leen di leen di leen di leen ndokkale ci mm-hmm. liggéey bu am solo bi ñuy def ci mm-hmm. jumaay Tiwaawan mm-hmm. ndax gis naa jub ba mooy loolu di dem ca kaw soroor ba mm-hmm. gis naa ko sama sedd bi xolati na <laughs> man daal sama sedd bi xolati na dafa am ñoo xam ne dañoo ne ci réew mi dëkk ak ñoom mm-hmm. te bés bu jot ñuy xool lu ñaaw wala lu bon ci diine mm-hmm. surtout si suñu kër diine yi euh, fi ñu taaloon daara daan fa jàngale alxuraan ba tey ñoom ñu nga ciy xool ay lu bon rek di ko wax ay ñun moom nanu am faydaay bu buñ gisee lu baax rek fësal rek waaw waaw kay euh, yaa Faty Diène maa ngi lay ziar bu baax a baax Abdou Ñàkk Euh, Nanette Dioum euh, Matisen Dieng euh, bien des choses à toi Beydi Sow ak Cathy Seck toutes ces personnes sont en ce moment en train de nous écrire des petits messages de Euh, de nuyoo maa ngi leen di fay bu baax baax n'arrêtez pas écrivez uh-huh. ci kanam tuuti après le de notre invité Babacar Varor mm on va donner la parole aux téléspectateurs au 88 mm -hmm. 628 17 27 kii njëkk a dugg uh-huh. la règle ne change pas mm -hmm. 25 kii ci topp Euh, cinquante mille kii ci toppaat cent cinquante mille. Uh-huh. ah noonu laa koy defee bu soobee yàlla. macha allah 88 628 17 27 fi mu nekk nii nag lu tabaski bi di gën di jege si sama tàng di gën a yaram may gën a yokk dooley poos. ndax nee kaas naa dem naa nee yi ngeen may jox par jour dafa tuuti. Ah, yokkal leen ma ko 1 million. dañoo prank ma suba. prank. waaw man dëkk bi li fi mel di fi di fi nekk dafa métti da ngay gis nit ñoo xam ne dañuy taxaw ne la prank ma damay def ma ne waa déet waay sëñ bi ëpp naa def mais bon euh, Babacar Varor est notre invité parler de l'artisanat avec vous ñu ngi lay ziar. Euh, yal na yàlla nangu ziar. allahumma amiin pap ñu ngi lay ziar bu euh, ñu ngi lay nuyu di nuyu également sëñ daam sëñ Matar. Euh, di nuyu téléspectateurs yi. Matar ziar nañ la baax à travers la 2STV. di am kontaan bu baax ñëw euh, ci plateau Good Morning. ñu hmm. fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu secteur artisanat. macha allah jërëjëf 88 628 17 27 88 628 17 27. mbokk yi Tabaski leen jëm yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm kenn bañ a manqué. yàlla na ñu yàlla may lu ñu def ci poos yi ba nu mën a jëndal xale yi xartum mbasin jesner ak yooyu ñuy àndal daal ci Tabaski ngir mu nekk fête boo xam ne dañ ci fas yéenee euh, dekkal jëfi Ibrahima ja mu dëgg jëfe woon digalu yàlla waaye dafa am loo xam ne daf cee laxasute ci artisanat lay dugg maa ngi lancé message boo xam ne bëgg naa ñi nekk ci internet bi bëgg naa ñi nekk ci euh, réew mii ak bitim réew ñu jëfe ko mooy ndax yëpp ngeen ne est-ce que vous saviez que at mu jot Sénégal dina importer quarante cinq milliards de franc CFA ci dàll dàll yi ñuy jëndee Maroc ñoom service marocain imaginel xaalis boobu ñu joxoon ko suñuy uude dañu bàyyi xel bu baax rek mm-hmm. du say kàddu nag euh, le chiffre là c'est l'artisanat c'est les ñoom ñoo ko joxe ñu ne at mu jot Sénégal ci dàll dinañ ci importer valeur u quarante cinq milliards ngir sol dàll ci jamonoy tëbaski yi ak affaire yooyu léegi nanu préféré ñun nanu waat ci yàlla ne nanu sol dàllingaay mhm. dàllingaay nag bu ma ko waxee mooy uude bi nekk Kaffrine dàll yi muy defar nanu ko tuddee dàllingaay ne Medina ki nekk Medina mhm. ka nekk Njaareem mhm. ka nekk tuuba ka nekk tàmba ka nekk Kolda ka nekk maatam ki nekk Japon ki nekk de safurla Japon bokk ci ku nekk uude bi nga dendal fexeel mu defaral la dàll yoo sol yow ak say njaboot benn dàll 5000 nga jëndal ci 4 personnes wala 5 personnes c'est 20 000 mhm. boobu ñu koy génne muy enrichir beneen dëkk mën nañ ko defaral suñu bopp te aujourd'hui la qualité de travail de nos artisans sénégalais a fait que amuñu lenn lu ñuy ñeewee keneen lépp luy matériel de construction am nañu ko. Mhm. matériel bi ñaw bu njëkkaa da daa sol daal naan dafa may xasan wala dafa xeeñ. Mhm. loolu yëpp jeex na bu ñu solati dàllu kenn nañu sol suñuy dàlli bopp. nañ essayer le maximum possible comme ça nit ñi même boo solul maraakis sax nga sol ay nu yoo xam ne sa fabriqué ici par des maa ngi leen koy ñaan te di sàkku ngeen euh, bokk ak man ci euh, nan laa koy tuddati ci partage bii ñuy def nii nga xam ne ku ci nekk dangay ngay gëñ ne man de wax dëgg yàlla dal yi may sol made in Sénégal lay doon. ci tabaski ji ren tabaski mm-hmm. maa ngi ciy woo président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. njiitu réew bu senegal moom moom nag bu baax moom yàgg na ci waaye woowaat ko ci mu dolli ci waat communication ndax Ousmane Sonko avant muy nekk ci nguur gi daana digle ngir ay soppeem ak ay jege ñaaleem ñu def nu ni mel na ko képp koo xam ne yàlla def bu defee ne sa baat boo waxee ñu dégg la ñun ñëpp ñu àndandoo def xàccandoo dóorandoo il faut que chaque leader d'opinion le petit influenceur le grand le nano le macro il faut que ñëpp àndandoo wax waa Sénégal ne leen bu leen am kersay sol dàll yi suñu uude réew mii di defar dalli ngaay bu ñu ko defee on on gardera en nous cinq milliards je n'exagère pas pour le chiffre parce que dama doon wax quarante trois milliards <coughs> artisans yi fii ci village artisanal ak yu Soumbédioune mm-hmm. ak yu euh, nu mu tuddee ci ngaay ne ma du quarante trois du quarante deux milliards quarante cinq milliards la par mm-hmm. an ah, imaginez loolu mm-hmm. dañ koy importer parce que nit ñi am na ci ñun ñoo xam ne pour ñoom bu ñu solul dàllu marocain soluñ chaussure marocain lañ koy wax. Mhm. mooy marocain yi ñaata ils achètent ça à huit mille neuf mille ou dix mille. alors que avec six mille tu peux avoir des chaussures fabriquées au Sénégal. qui ont la même qualité ou la meilleure qualité. donc maa ngi ciy woo képp koo xam ne influenceur nga képp koo xam ne. leader d'opinion nga ngay jiite mbooloo nga nekk président groupe WhatsApp s'il vous ngir yàlla ren nanu fexe waa réew mi yëpp sol dal di waa réew mi def nii def ñun. ñun def ni nii def. waaw ñu ngi ci wala wala wala wala. merci beaucoup ci ci plaidoyer bi. waaw parce que yaa ngi koy yaa ngi koy wax léegi. Mm-hmm. Euh, yaakaar. Mm-hmm. parce que bu ñu bàyyee xel ci ginnaaw. déjà le le président de la république le premier ministre avant même ñuy jot ci réew mi daan nañu amal ay activités yu jëm ci ci wàll woowu tuddee woon ko dooleel sunu aar gis nañu président Ousmane Sonko. étant parti de l'opposition dem Soumbédioune lancé lu mel noonu woo ci sénégalais yi gis nañu également bi ñu jotee réew mi conseil interministériel bi mu jiitee euh, jëmaloon ko ci waajtaayu tabaski bi wax na ni euh, tabaski bi du rek xar yi waaye tabaski bi aussi artisans yi ci lañ bokk te buñ nee artisans yi ci lañ bokk tailleurs yi ñiy liggéey ci wàllu textile ci lañ bokk mais effectivement comme ni nga ko waxee léegi maroquiniers yi ci la ñu bokk itam. ma joxe juróomi junni ñu jënd ci mburoog temps maa ngi euh, laaj Jams le vrai mi di ma message naan ma urgent réponse c'est quoi le message. alo wi alo wi allo Pape Sidi. oui. noo def. na nga def tudd. allo. 88 628 17 27 il s'en est fallu de peu que mu ndekkee léegi léegi appelez-nous au 88 628 17 27 ndekki juróomi junni léegi nga jënd ci mburoog thon wala nga jënd ci mburoog euh, chocolat wala yaa xam mburoog ndambe wala ça dépend. ça hmm. dépend yow lan ngay ndekkee alaaji. man eh. waaw chaque jour nag bon yenn saa yi yàpp yenn yi. yàpp waaw cere ak mbumbu am yàpp. waaw yow ndekkee waaw alaaj yow li nga ndekkee riis na de yow hmm. vingt cinq mille attanoo ma la rek bu mu am yàpp rek alaaj vingt la ngay ndekkee ah mosu waaw lu ma xëyee lu mais am nga ndekki de préférence <laughs> man mosumaa gis nit bu amul suwaa si àdduna <laughs> <laughs> euh, Babacar yow looy ndekkee euh, man la leen ma doo kaas fonde de kaasu fonde waaw bu dëgër wala sombi gerte muroog fonde wala nangam nangam non kaasu fonde bon alaaj ah, danga ñoo nar nii ni ngi ñuy laajee li ma leen di laaje nii ku nekk dama la nar a jox vingt cinq mille tout de suite en direct à la télévision Kader Katzo je passe le salam aleykum euh, euh, de l'autre côté euh, Siagro maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñëpp rek sauf Marius parce que moom défaillant la

est-ce que am na kenn ku bëgg woote wala kenn ku war woote wala kenn ku bëgg a woote <coughs> allo allo allo allo allo allo allo allo allo kii de maa ngi xool numéro am pour yónnee ko xaalis mais gisaguma ko 88 628 17 27 88 628 17 27. Allô Allô allo allo oui grand na nga def naa Pape Sidi yaa ngi si jàmm oui va très bien noo tudd ak fooy wootee Kéba maa ngi wootee Koumpentoum Kéba Gueye Gueye. Kéba Gueye vous nous appelez d'où Kéba. oui depuis Koupentoum. Koupentoum. Koupentoum Koussanar jàll ba Tamba. Mm-hmm. maa ngi lay ziar. Kéba Gueye est-ce que vous avez la possibilité de vérifier avec votre téléphone ndax di nga mën a jot xaalis waa wala déet Kéba Gueye xoolal sa téléphone. soo jotee vingt cinq mille nga ne ma jot naa ko waa DMTA ni ñuy fëggee weñ fii daf maa naqari de mënu si dara mais bilaay bàyyi naa leen ak yàlla <laughs> alo allô alo Kéba. wàcc na. Eh, eh. wàcc na Kéba am Kéba du caaxaan. waaw doo xool si serveur bi waaw amul eh, benn message jam c'est le vrai bàyyil ba ma pare comme message nga ma yónnee <laughs> buggul noonu comprendre. nee na naa xool message bi je vais regarder mais après l'émission peut-être 88 628 17 27 88 628 17 27 est-ce qu'il y a une personne en ligne alaaj dañuy dem Kaffrine. bu amul kenn kay mën nañu dem. maa ngi xool kenn maa ngi woote. maa gars yi est-ce que ñu ngi woote. d'accord ma jël sama temps ba pare. non dama bëggoon ñu dem Kaffrine comme ça gars bu fekkee dañuy woote ñu jox ma leen. après ñu dem ayca ñu ñu dem bi nga xam ne amoon nañ ko xam ne mooy daara ji nekk Kaffrine mu nekk daara ju spécial. ñu dem xool ko te ñëwaat ci plateau bi. waa DMT amu leen là n'a pas bañ teg foofu sous impression. mën nañ ko tegaat pour bañ euh, YouTube voilà. mën nañ ko tegaat après mën nañ continuer rek Grégoire on y va. on te plaît. maa ngi dégg téléphone baa ngi sonne noonu euh, on peut y parce que nee na partie boobu amul son mais am na partie boo xam ne am na son parce que dafay bañ mais da ngay jël ay son non copyright alaaji ça. c'est faisable quoi 88 628 17 27 s'il y a un téléspectateur en ligne on le prend sinon on va être obligé de la discussion avec euh, euh Dam en attendant de revoir euh, l'autre élément si c'est dans la mesure du possible 88 628 17 27 je m'entends très très fort sur le retour Marak soo ko mënee wàññi ce waaw kay 88 628 vingt 27 88 628 17 27 kan laay jël léegi léegi am naa ku ñu waxoon léegi Kéba. Kéba ku mën ko. Kéba Kéba bu fekkee mën ngeen ma ko lijjanti waatal ngeen jox ma Kéba waay. Mhm. dimbali leen ma ngir yàlla xaw ma lan moo tax Kéba Kéba Kéba kii nii. 88 628 17 27 1. d'accord ah, après ñu dem ci élément bi. d'accord euh, vu qu'il n'y a personne Alaaji mën nga tàmbali waxtaan wi ak sa gan. waaw merci beaucoup Alaaji comme ni nga ko waxee noonu sànq ci ndorteel bi donc am nañ fi mbégte bu baax a baax a baax euh, di dalal ki nga xam ne mooy Babacar Valor Babacar Valor moom mooy euh, ki nga xam ne moom mooy coordonnateur du mouvement national des artisans patriotes muy MONAF du Sénégal donc. ci li ñuy waxtaanee alaaji wax nga ko sànq donc gis nga ne jamono ji pour defaraat dëkk bi ñu ngi toxal artisan yi bu baax a baax a baax a baax ci yenn barab yeeg yooyu noonu li ci rawatina ñi nga xam ne ñun ñooy mécaniciens yi alaaji dinañ waxtaan aussi ci politique bi nga xam ne ñii bees teg nañ ko lu jëm ci wàllu secteur de na donc moom mii mu nekk ci ñi nga xam ne tey yàlla dimba na leen ba bokk ngeen ci ñi nekk ci projet boobu doon ci nas alors Babacar ñu ngi lay dalal bu baax a baax. mais merci beaucoup sëñ daam mhm. ñu ngi rafetlu comme ni ma ko waxee sànq invitation bi. Mhm. Euh, di ci profito di nuyu tous les artisans ki nous suivent à travers la 2 mhm. euh, di am mbégte bu baax fas yéene toog ñu waxtaan ci lu jëm ci wàllu secteur artisana d'accord donc muy nekk ñu ciy wax déguerpissement donc bu ñu ne déguerpissement donc mu nekk loo xam ne ay déplacement buy am la ci artisans yi jëm ci yeneen gox. donc mu nekk loo xam ne actuellement mën naa jàpp ne ñenn ñi ñu ngi ci ñu ngi koy rafetlu mais ñenn ñi aussi mu nekk lu métti ci ñoom parce que ñu ci bëri dañ ne dañu nekk ci euh, jege tabaski ñenn ñi nee nañ fi ñu nekkoon moo gën ñenn ñi nee nañ amuñu ñu jëm donc ban politique tey yow nga gis ne loolu noonu mën nañ ko saafara lu mel noonu nga xam ne ñaari boor yëpp kenn ku nekk dina ci gis boppam. Euh, merci beaucoup ci question bi effectivement dafa nekk actualité. Mhm. parce que gis nañu fan yii yëpp ñu génn am na ay artisans yu bari yoo xam ni déplacé nañ leen. Mhm. Euh, boo xoolee particulièrement ñi nekk ci zone aux alentours du stade. Léopold Sédar Senghor mhm. déjà jot nañ leen fa jot nañ leen fa jële fan yee ñu génn ak ñeneen ak ñeneen. Euh, xëj na balaa may peut-être approfondir question boobu dinaa wax un par rapport ak le mouvement bi nga xamante ne nii xëy tey yàlla def na ma jiite ko. Euh, xëñ na ba tax tey ma ngeen invité ma ñu fas yéene waxtaan ci artisanat. Euh, man maay coordonné le mouvement national des artisans patriotes xëj na nag ñu bëri jotuñu ko xam. muy mouvement boo xam ni ni ko JPS nekkee dans le PASTEF. jigéenu PASTEF nekkee ko magi PASTEF nekkee ko. noonu la amee kuréel boo xam ne dafa regrouper ay artisans nekk ci biir parti politique bi donc man en tant que coordinateur et mon vice coordinateur nous sommes membres du bureau politique de PASTEF. Mhm. mu nekk nag loo xam ne c'est historique parce que euh, en général li ñu daan gis ci parti politique yi mooy mouvement des cadres mouvement des femmes des jeunes des enseignants mais PASTEF avec sa démarche ci projet bi dafa jàpp ni am na loo xam ne boo ko bëggee ci réew euh, bëgg jël en compte préoccupation ñëpp. da koy démarrer déjà ci parti politique bi nga xamante ne nii xëj na moom moo war a porter le projet ba tax na en deux mille vingt et deux mille vingt deux ñu structuré waat parti bi ci la dugal mouvement des artisans dugal mouvement des handicapés et cetera pour que projet bi mun a nekk loo xamante ni lu complet la. donc pour revenir un peu par rapport ak sa question mhm. euh, déjà ñun au niveau du mouvement am na lu ñu ci jotoon a liggéey mhm. parce que bi kilifa parti bi validé li nga xam ne mooy mouvement bi déjà ci wàllu structuration le secteur de l'artisanat mhm. je pense que yaa ma gën a xam on parle tout le temps de section production service et art ñu jàpp ni c'est un peu limité parce que tey y au moins plus de cent vingt six corps de métier donc pour ñun jàpp nañ ne war nañu dem ci démarche de filière donc tey boo xoolee ci structuration nag il y un représentant de la filière automobile déjà ñun ci suñu gis-gis jàppoon nañ ni euh, war nañu fexe ba Sénégal ci si départements yëpp ñu fexe ba def fa ay zone d' activité artisanale yoo xam ne artisans yi dinañ fa mën di dinañ fa mën di yëngatu mais au delà aussi di zone activité artisanale bi war nañu fa def ci 46 départements yi fenn fu ci nekk benn zone d' activité de commercialisation des produit artisanaux sànq pa ba koy wax artisans yi xëj na ñu ci bari dañuy liggéey ani seen i produits mais dinañ am jafe-jafe fu ñu koy exposé tey boo demee tey ci programme PASTEF ci lu jëm ci wàllu volet artisanat ñaar yi ma la fa tuddal yëpp di ko fa gis. donc bokkoon na ci déguerpissement bokkoon na ci wala. on parle pas de déguerpissement <laughs> mais on parlait on savait que y aura des déguerpissements. Mhm. parce que xam nañ ne artisans yi. ñu parce que si vous aviez de pas commencé par. Euh, créer des problèmes aux artisans. non c'est pas créer des problèmes. Si. mais c'est peut-être c'est peut-être euh, teg ay jéego pour au moins réguler le pays. c'est c'est, c'est très difficile <coughs> ñun déjà lu ñuy mettiwu la lu ñuy masawu la man personnellement. biñ leen di dëgër pire je me suis déplacé dem fa waxtaan ak ñoom wu leen parce que kenn ku nekk xam na ne lu métti la mais ñun ñëpp aussi xam nañ ni zone yi ñuy faral di nekk. Euh, lu ci ëpp ay espace public la mhm. man ma am ci soxla artisan bi am ci soxla mercin bi am ci soxla de manière générale sénégalais bi ci boppam am ci soxla. mais période bi ñu leen déguerpir c'est à euh, quelques jours de la tabaski c'est difficile pour les pères de famille. mënoon nañu mënoon na am approche boo xam ne xëy na dinañ ci waxtaan ba trouver benn terrain d'entente. donc est-ce que Pastef wala le gouvernement actuel écoute votre euh, monap. mais mais bien sûr seen structure ngi leen di déglu. mais bien sûr parce que dégluñu moo andi. tey ñoom ñu jàpp ni war nañoo mën a fexe le problème de déguerpissement des artisans ñu mën ko régler de manière définitive te ni ñu ko mën a régler mooy fexe ba au lieu ñuy séddale suuf si di ko séddoo en tant que homme politique kii jël cinq hectares kii jël dix hectare mais ñu sóoraale ay zones yoo xam ne dinañ ko aménager pour que artisans yi mën di fa liggéey convenablement euh, mu nekk lu am solo donc tey comme ni ma ko waxee ci njëlbeen gi mooy. bu ñu amul solo kay ñii kay représenté wuñ artisans yi. bi ak thème bi nag ñii dañ leen waroon représenté parce que ñii bu fekkoon ne doy nañu ay lawoka. Mm-hmm, mm-hmm. pastef du ñu euh, wala bi nga xam ne pastef moom moo ko jiite. Mm-hmm. du ñu du ñu du ñu joñax yi fi mu nekk nii ci guuta. déguerpissement yi fi mu nekk période bi Babacar ak ak ak ay pères de famille. loo loo loo laa doon allez-y allez-y Ba. effectivement c'est que c'est que ah bu wax am na solo de am solo de. xam nga xam nga Pape xam nga Pape réew. Euh, ñun tey nee naa la en tant que artisan lu déguerpissement bi xëj na lu ñu déranger la mënoon na am waxtaan. Mhm. je pense que bu waxtaan amoon. Euh, waroon nañoo mën a fexe au moins ñu xool nan la ñuy arrangé wu ba au moins après la tabaski ñu xool nan la ñuy def maintenant loolu aussi il faut ñu xool lan moo ko waral je pense que depuis presque une dizaine d'années on a toujours parlé de déguerpissement déguerpissement artisan yi commencé wul tey mais qu'est-ce que les états qui se sont succédé lan lañ ci def comme jéego pour déguerpissement bi jeex je pense que foofu mooy jafe-jafe bi tey boo xoolee Zampa on en a tellement parlé ñu inauguré fi à grande pompe mais y a même pas deux cents ateliers yoo xamante ne ni tey nekk na Zampa xoolal artisans yi nekk au niveau au niveau au niveau de Dakar ni ñu tollu ak ni ñu téye emprise yu yenn artères yi donc je pense que tey li Pastef war a def ñu ngi soog a ñëw am na loo xamante ne ni xëj na war nañ ko mën a réguler ci dëkk bi. jàpp naa ni le président de la république le premier ministre est très conscient du développement du secteur de l' mais impact bi nga xamante ne ni artisans yi ñu ngi koy jouer sur le plan social sur le plan économique. ba tax na je pense que loolu aussi jëriñ ci dugg ci waxtaan bi c' est historique bu leet ñu gis président de la république bu jël réew mi en moins de deux mois. après la passation de après la prestation de serment mu taxaw communiquer ci lu ci secteur artisan bi mais instruire son gouvernement à ce que lépp lu ñu war a def su le plan des réforme nga xamante ne nii dina gën a yaatu ci préoccupation secteur artisan yaa ngi koy wax léegi ci wàllu maroquinerie ñu fexe jublu ci je pense que loolu c'est des actes yoo xam ne dafay wane ni nguur gi fi nekk xam nañu secteur bi avant que ñu leen di jox réew mi mais aussi am nañu yéene changer li nga xamante ne ni moom mooy doxalin biñ naan faral di gis lu ci mel ni déguerpissement yi nga xam ne ñun ñëpp la métti ma ciy profité également di ci mastawu ñi nga xamante ne ni xëj na subir nañ ko. Uh-huh. mais di wax ni euh, déjà ñu ngi ñun pro pro. déguerpissement yi métti wu ma de je suis d' accord avec mais période bi ñu ko defee. ak yow nga ni euh, Pastef nga bokk. Euh, te Pastef da ngeen a am foofu noonu une considération mais considérable vis-à-vis des artisans je me suis dit que peut-être su ngeen waxtaanoon. au sein de votre euh, formation politique du ngeen ñëw rek teg fitna wi artisan yi fi mu nekk nii ku tal xar tabaski ak noo dundale sa njaboot léegi yaa ngi tal naka ngay def ba fan ngay liggéeyee fan ngay jëlee xaalis c'est difficile pour les artisans c'est très difficile c'est le secteur informel c'est très difficile et que ñun aussi ñu ngi leen di massaw une fois encore mais je pense que dina permettre ñu régler de manière définitive euh, li nga xamante ne nii moom mooy les infrastructures de soutien mm-hmm. destinées au secteur de l'artisanat mm. voilà alaaji euh, sànq li ma doon wax ne am na solo c'est-à-dire thème bi nga xam ne ñu ngi koy aborder ci loolu parce que lenn laa ciy wax pour mu gën a leer mooy tey bu ñu ne déguerpissement sax dañuy jàpp ne dañuy déguerpir artisan yi ne Sénégal nekk ci fu ñu mën a ne déedéet ñu yëkkati leen mais dafa am loo xam ne alaaji boo ko waajee waajaat ko boo moytu doo mës defar réew boo de boo bu fekkee da nga ne nañ fi jot tabaski ñu ne noonoo tabaski bii mu ngi waaj a jot bientôt nga ne non naa naa waaj waa mois décembre ñu ne non décembre dañuy jaay décembre. il faut que alaaji bu ñuy defar dafa am loo xam ne moom la ñuy def. Mm. parce que man su fekkee na ab artisan la am na foo xam ne bu ma fa taxawee bu ma fa tegee sama atelier daf ma leer na fii buñ bëggee defar pour mu yaañ ñi damay fiy jóg. Mm-hmm. donc bala ñu maa yëkkati war naa mën a pareel sama bopp. je suis d'accord. Mm-hmm. beneen bi ci des am na artisan yoo xam ne def nañ ba conscient parce que ay chef d'atelier lañ xam nañ ne dama yor benn. Euh, nan laa koy waxee am naa emploi yu topp ma leen di jàngal métier donc soo su fekkee ne dama bëgg a defar damay dem wut foo xam ne donte dama fay fay ak tuut ay taxi mbala ma luwe dinaa fa dem teg fa sama bopp ba ëllëgee kenn du ma fa jëlee. mais bu fekkee ne par exemple tey danga jël benn artisan boo xam ne dafa dem ba rond-point Kër Massar mu daaj fa plateau mu mu daaj fa atelier mm-hmm. alors que léegi peut-être maire bi bëgg na defar su boobaa daf naan mais artisan bi dafiy jóg moom laa yemale ak ambulant bi. donc bu fekkee ne dangay defar faw nga am ñoo xam ne da nga leen di gaañ mais pas da nga leen bëggoon gaañ mais da nga bëggoon defar pour mieux fair parce que da nga bëgg nga bëgg a te bu fekkee ne da xàcc di xàcc di xàcc di xàccaan ne chaque fois su ma bëggee def lii parce que événement bi moo tax. Mhm. doo mës a defar alaaji parce chaque fois tey ni ngay waxee ne tey événement bi moo tax kii mu jóge fi mbala événement bi nañ ko bàyyi événement bi am na keneen koo xam ne tamit boo ko bëgg a déguerpir dina la wax ne la lii contexte bi boo mu fi yëkkatee du ma am lu ma lu ma lu ma yóbbu. lay du jeex. voilà léegi lay bu jeexul nag li ci nekk mooy il faut que état ne ah lan mooy nekk solution mooy kenn koo xam ne jël naa la ci barab bii dinaa la yóbbu ci beneen barab boo xam ne di nga am possibilité yow la ngay jaay mbala sa atelier ba ngay liggéeyee mhm. nga nga nga am loo fa def wax naa ko fi bi ñuy wax mécanicien yi ci Zampa bi ma ne ko dañ Zampa bi am na solo bu fekkee ne nombre d'ateliers d'ateliers ya fa nekk mën na recevoir artisans yi nga xam ne dañ leen di maanaam mécaniciens yi nga xam ne dañ leen di jël biir centre ville de Dakar bala ñu jël leen ci route day euh, route de comment dirais-je euh, route nationale numéro un bi nga xam ne am na ñu fa jógewoon côté Thiaro yi ay jamono mm-hmm. bu fekkee ne am na benn politique bu ñu leen tegal à ce ku paan rek di am possibilité dem ñu yóbbu sa oto ci zampa bi mooy bi ma la wax ne la possibilité bi ñu war a mën a def ci autoroute Ila Touba possibilité bi ñu mën a def ci autoroute euh, Eiffage bi nii possibilité bi ñu mën a def ci autoroute bi jëm Mbuur nga xam ne kenn ku paan dañ naan la première diagnostic bi ñuy def ci oto bi ñu ngi koy defee ci zampa bi donc mécanicien yooyu dinañ am possibilité ñoom mën a exercer seen métier foofu dinañ am possibilité aussi mën a réparer li nga xam ne moom mooy oto yi. beneen bi ci des aussi boo demee ba wër li wër stade amitié. yow leer na la stade amitié mu ngi nekkoon en chantier déjà. ñu war a jeexal chantier bu mel. directeur stade bi moo jox foofu gars yi ah. non je te dis une chose. boo leen laajee dañ naan leen c'est le directeur du stade qui nous a donné. Ah. léegi dama lay jox benn ay parking yu wéeru ci miiru stade. waaw léegi ñuy jaay leneen. am yéen foofu garage bi ñu ne foofu yëpp moom la bu fekkee ne bu fekkee ne ñooñu bëgg a toxal. léegi ñoom ñu jël chapeau bi yenn ko artisan bi par exemple parce que y a deux mécaniciens ou trois yu fa nekk alors que di nga fa fekk benn parking boo xam ne ay nit kuy jaay oto moo fa nekk kooku am na possibilité am benn espace bu mu loué pour mën a dem exposer foofu ay oto mais daf naan comme aéroport bi moom moo gën a accessible. ku tourné dina gis samay oto dama war a dem foofu noonu teg fa samay oto am na keneen koo xam ne dafay ñëw def fa daral di fa jaay xar pendant des années boo ko bëggee yëkkati ci zone boobu mu ne la tabaski day ñëw jot te xam na ne ay at a ngi at ñu ngi koy defar di ko defaraat am na ay jamono boo xam ne man bokk naa ci ñi demoon ba foofu di set setalaat foofu pour defar ko bi maire Padois moo ko defoon ay jamono alors que bu fekkee ne loolu dañ ciy xaar boo moytul dinañ fi toog di toogaat te duñ mën a defar réew nga réew bu ñu koy defar loxoy kenn ku nekk def ci am wàll man am na boo xam ne bu ma nit waxee ne defalal sa toogaay bi c'est parce que daf du du parce que daf ma bëgg a xas mbala ni ma toogee moom moo ko neexul mais dafa bëgg bu ma nit ñi gisee mu yànj donc nit ñi buñ ne la jógeel fii dem fële c'est parce que dañoo xam ne espace boobu noonu boo ko joxee nit ñi dinañ mën a gën a am espace dinañ gën a mën a nooyi mbala dinañ fa gën a mën a dund moi je pense que je pense que c'est c'est dans ce contexte là mais mhm. peut li ñu war a fi ñu war a gën a teg yëf yi mooy fexe ba lii mën a jeex ci réew mi mhm. parce que Pape mënuñu nekk ci réew mi aussi ci taf yëngal tey dégg nga fi euh, ñi nekkoon ci piste bi dëgër pir nañ leen dëgër pir nañ ñi nekk ci booru stade bi am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xëñ ñi fi ñu nekk actuellement suba wala ginnaaw suba mun lañ faa jëlee donc pour man li am solo mooy am un état bu am hmm. vision par rapport ak régler de manière définitive le problème des infrastructures destinées au secteur de l'artisanat et je pense que am nañu yaakaar bu baax a baax a baax ci nguur gi fi nekk bu ñu xoolee démarche bi ñu jël ak actes yi nga xam ne jot nañ ko posé mhm. jëmale ko ci secteur mais man xam nga là où je ne suis pas d'accord mhm. mooy sama njalbeen au départ de mon dama leen wax na la nañ jàppale suñu artisan yi parce que quarante cinq milliards la ñuy importer ay ay dàll tabaski bu jot te c'est pas des chiffres que j'ai créés mhm. c'est des statistiques ba teg ci daal ne yow ci sa wax laa dégg Babacar Waroor nga ni Euh, yow Pastef nga bokk. yéen ay artisan patriotes yi. ma ni ci diirub ñaari weer yi nga xam ne moom la fi nguur gi nekk bi ñu dikkee décision yi ñuy jël yépp nit ñi dañ koy applaudir man ba mu des déguerpissement yi nga xam ne daa mal tabaski bi d'accorduma ci parce que dama jàpp ne war nañu leen a déguerpir ñu jóge fi. waaye dafa toll ak période boo xam ne dëkk bi dafa dafa nekk à cesse c'est-à-dire nit ñi dañu sonn quoi. Mm-hmm. xaw ma ndax li may wax tu compatis avec moi. non peut-être je, tu peux ne pas être d'accord non non je suis parfaitement en phase. avec, voilà. avec vous dafa dafa tar nga bàyyi ba wala ñaar fukk. nga dëgër piir borom kër. nga koy teg. man mënoon naa may ñu dëkk ne leen may nañ leen ba tabaski bi bu weesoo. nu waay xam doomam def déclaration médiatique quand Sonko a envie de dire quelque chose ou quand Bassirou Diomaye Faye président de la République a envie de dire quelque chose mais ça passe comme lettre à la poste c'est relayé par tout le monde je suis en phase avec euh, vos propos moo wax la d'abord déjà que ni gis nga ñii ñu dëgër pire au niveau du stade est-ce que xam nga ni le chargé de la massification du mouvement mais il fait partie des déguerpis le point focal de la commune du Monap de la commune de Patte d'Oie il fait partie des déguerpis moi personnellement nañ campagne ci yooyu presque deux ou trois reprises ça nous met très mal à l'aise mais peut-être comme ni ko sëñ daam waxee léegi réew xëy na am na noo koy defaree y a des hauts et des bas pour man ce qui est important actuellement mooy nous avons pris acte et je sais que le gouvernement a pris acte pour que artisans yi mën a am désormais fi nga xamante ne nii foofu kenn dootu leen fa jëlee Euh, di leen dëgër piis waaw léegi foofu moom du seen place sax nag on va travailler foofu du seen place mooy Kër Massar mooy Padoua mooy Essat foofu du seen place maintenant bu ñu leen dëgër piiree ba pare fan lañ leen di yóbbu mais justement parce que déjà am na Zampa bi malheureusement état bi fi nekkoon euh, li mu ci waroon def defu ko ci parce que déjà depuis des années ñuy wax waxu Zampa Zampa Zampa ba ba ñuy dem ni quelques ateliers lañu lañu la ñu joti inauguré maintenant le gouvernement qui est là ñu ngi ci commencé le ministre de l'artisanat déjà dem na fa temps yi passe def fa visite donc certainement on va essayer de voir comment terminer les travaux là ñi nga xamante ne nii déjà recensé woon nañ leen ñu waroon a dem ci Zampa bi. ñu mhm. commencé le processus. Mhm. parce que artisans yi bañu ñoo dem. mais li ñuy demander aussi mooy un accompagnement parce que kenn ku nekk xam na ni. Zampa xaw na ko ci tuuti. Mhm. ñu ci bari peut-être seen clientèle. Zampa kay jam ñaajo la ne moom. très bien donc am nañu ay apprentis yoo xam ne chaque fois ñii Guédiawaye lañu dëkk ñii Pikine et cetera dañuy xëy war a dem liggéeyi donc il tout un peut-être euh, système boo xam ni euh, je sais que l'État du Sénégal les artisans les acteurs dinañ ci toog waxtaan ba nga xamante ni dinañ xool naka la ñuy def pour que les artisans mën a am au moins ay ateliers yu ñuy mhm. merci Babacar Valor du loolu kese lañ doon bëgg a wax parce que nekkoon ci li nga xam ne mooy toxal mécanicien yi mbala toxal uude yi wër estaat euh, ba Mar du seen place ah, waruñ fa nekk yooyu yëpp donc ay wax loo xam ne wax nañ ko fi waxaat ko fi donc sénégalais waroon nañoo pare à ce kenn ku nekk rek dama naan sénégalais bu ne war nga mën a xam sa toogaay fii rafet naam rafetul ak loo fa mën a gañe nag parce que dama naan bu fekkoon ne am rek da nga naan am maanaam tabaski dafa jot rek ma ne non non sonn naa fu mu ne tabaski bi il foo ma fu ma ko jëlee mais man sama mat war na yegg ci du ma sàcc sama mat war na yegg ci du ma def loo xam ne yenawul maana te dafa dafa am yenn gàllankoor yoo xam ne nit da koy gàllankoor ci dëkk day mel ni moo ki sàcc ñoo yem parce que da ngay sonal nit parce que boo ñëwee ci benn territoire mbala benn kaw yoon ba ambulance mënul jàll mbala ñi nga xam dañoo bëgg a jóge ci zone boobu sax bala ñoo buñ jógee ville bala ñoo dugg seen dëkk yi kenn maanaam mën nañ guddee pour ñu dugg seen i kër yooyu yëpp ay lorlaange la donc mm-hmm. am na li ñu tuddee les nouvelles politiques yi nga xam ne tey nguur gu bees gi moom dañ ko ci teg dans le secteur de l'artisanat jëm ci naka la ñuy réformer le secteur de l'artisanat mm-hmm. mbala naka comme li Pape Sidi souligné tax euh, sànq def promouvoir li nga xam ne mooy le consommer local tey ba nga xam ne tey artisan bi moom dina am maanaam fierté gën a mën a produire mais aussi dina am yoon woo xam ne dañ naan ko yoon wi dañ la ci tegal lan la daloon pendant des années ci ay régime yu bokkul maintenant y aura un changement ci ci ci loolu donc ban politique tey yéen moom ngeen teg pour mën a artisan bi mën a siggi bu baax a baax mën a am yaakaar ci li nga xam ne moom mooy nguur gu bees gi. c'est quoi politique de Pastef mais, mais merci beaucoup je hmm. pense que pour déjà clôturer euh, par rapport ak sujet bi euh, Pape Sidi doon wax sànq euh, je pense que politique bi déjà. gis nañ ko déjà ñu commencé nañ cee teg bët. parce que bu ñuy wax waxu infrastructure. je pense qu'il faut d'abord nga am espace boo ko boo ko defee euh, yaakaar naa gis ngeen nguur gi bees gi euh, actes yi nga xam ne jot na ko posé par rapport ak ni ñu doon saax-saaxee suñu suuf si pourtant bi ñuy séddalee ay cinq hectares dix hectares boobu xalaatuñu benn yoon que ni artisans yi kat war nañu am ay béréb yoo xam ne war nañ faa liggéeyee amul benn yoon bu ngeen dégg ñu ne suuf si ñu doon joxe par cinq dix hectares ñenn ñi di ko séddoo solaal nañ ci artisans yi donc je pense que euh, le nouveau gouvernement avant même d'être au pouvoir li nga xamante ne nii jàppoon nañ ko ci côté boobu mooy dinañ fexe ba quarante six départements yi fenn fu ci nekk ñu aménager fa ay espaces yoo xam ne artisans yi dinañ fa mën a liggéey sànq Pape mi ngi wax affaire euh, dallu ngaay wala boog dallu maroquinerie. waaw ko ne tuddee. dalli wuude yi. mais dafa am déjà un préalable. xam nga pour nga liggéey daal ude il faut nga am der mais Pape il faut qu'on se pose la question à savoir nos peaux de bête nan lañ koy def Sénégal am na tabaski d'ailleurs ñu ngi koy waaj am màggal Touba am tamxarit am korité mais sunu der bi nan lañ koy def weer mu wow ñu xorom def ci conteneur yóbbu bitim réew ñoom ñu traité def der li baax ci der bi ñu def ko ay meuble ëlbatiku jaayaat ñu ko la ca def ci ay suite ñu yónnee ko suñu marocains ne moom la ñuy jënd. Mhm. di ko liggéey. c'est dommage mooy seen politique ci loolu. problème li ci jiitu mooy fexe ba am benn usine de tannerie digne de son nga xam ne Sénégal fii dinañ fi mën di produire cuir. parce que 45 milliards yi ma wax 45 milliards yi ma wax léegi excuse moi dama la koy joxal rek milliards yi ma wax léegi. Mhm. mën na defar 4 usines de tannerie. mais mais justement donc loolu mooy vision bi nga xamante ni tey le nouveau gouvernement euh, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko mais vision boobu la ñu am man personnellement j'en ai discuté récemment avec le secrétaire d'État chargé des petites et moyennes entreprises mu am vision dans le cadre de mettre en place une tannerie moderne nga xam ne ñiy liggéey ci wàllu maroquinerie ak cordonnerie seen jafe-jafe ci matière première dina régler. est-ce que tannerie bi kese lañ ci yem parce que aussi boo waxee tannerie aussi ñu bañ kii ci point boobu donc am na li nga xam ne mooy mobilier national bi aussi nga xam ne tey menuisier bois yaa ngi ci menuisier métallique yaa ngi ci donc a été nous mettrons en place des dispositifs pour que l'accès des artisans à la commande publique soit une réalité mmh. de générale xam nga yaa ngi wax ci commande publique euh, déjà Sénégal dañu tegoon lu ñuy wax programme mobilier national euh, am na loo ci jot a xam mais boo xoolee programme boobu dafa dañ ko limité ci ñeenti filière filière textile filière bois métal cuir et peau mm-hmm. mais liggéey bi ñu ci war a def dëgg pour que artisans yi mën a accéder à la commande publique moom lañ ci deful le nouveau gouvernement a pris toutes les dispositions actuellement ñu ngi ci liggéey bi pour que ñu fexe d'abord sur le côté des textes ñu régler la problème fexe ba artisan bi dinañ oyofal yëf yi ba nga xam ne artisan bi dina mën a participer euh, ci ay appel d'offres mais aussi dina mën a gagner li nga xamante ne nii moom mooy la commande publique ma yokk ci ni déjà boo xoolee code communautaire de l'UEMOA nga xam ni aussi bokk na ci li nga xamante ne nii Euh, le président Bassirou Diomaye fay jëloon na décision ne dinañ ko adopté bu ñu jotee bu ñu jëlee réew mi te depuis 2014 le code a été adopté au Sénégal euh, en Afrique. Oh, en Afrique mais Sénégal lank ne moo ci def moo ci def lank ne du ko du ko adopté te ci code boobu dañu ne képp koo xamante ne ni bokk nga ci UEMOA 15 pour cent de votre commande publique da koy destiné ñi nga xamante ne. xanaa da ciy boole li ñu dëxëñ ci SNDA bi aussi. Euh, SNDA bi d'abord peut-être temps bi duñu ko may dafa am ñaari SNDA dañu jëkkoon liggéey ci benn SNDA en 2006 ñu toog xaara xaara xaar ba benn instant ñu jékki-jékki créé waat beneen SNDA boo xam ne ça n'a voir avec tey li nga xam ne moom la artisan yi bëgg donc ñun am na benn programme boo xam ne de manière générale def nañ ko xëj na dinañ ci waxtaan ak acteurs yi. Ah. partagé ak ñoom parce que li ñu gëm euh, déjà te ñu war ko njëkkee sax. muy la réforme des textes qui régissent le secteur de la l'artisanat yaakaar naa ne euh, chaque fois dañ daan dégg ay problème ci chambre de métiers yi euh, ci doxalin bi ci démarche yi ci carte professionnelle yi à chaque fois bu élection amee da ngay dégg xëccoo beeg mbiicoo mbaaloo bi donc ñu jàpp ni textes yooyu nga xamante ne ni elles sont te méngootul ak jamono la ñuy njëkk a def mooy fexe ba réformer ko mais bu ñu koy réformer aussi mhm. on le fera de manière inclusive dinañu fexe ba lii di président chambre de métiers yi union nationale des chambres de métiers les organisations mm-hmm. professionnelles et les artisans de manière générale kenn ku ci nekk mën ci joxe xalaatam joxe ci appréciation bu ko defee ñu am des textes inclusifs yoo xam ne dina mën a jël en préoccupation wu artisan wu Sénégal yëpp macha allah alaaji rafet na donc waxtaan nañ ci réformer li nga xam ne mooy chambre de métier yi promouvoir le secteur de l'artisanat jiital ci consommer local yi wax ci li nga xam ne mooy jéem a fexe ba artisan yi bu ñu leen jëlee fii am feneen fu ñu leen toxal fu gën donc def politique boo xam ne tey Zampa ba dinañ ko mën a dundal mais en même temps ci sa njëlbeenu wax wax nga dëkk bu nekk ñu def ba benn zone yi boo xam ne secteur de l'artisanat dina fa mën a exposé def ay foire au niveau national et international donc gën a aussi li may gën a insister à ce que ñu gën a aussi sensibiliser les artisans à ce que tey kenn ku nekk bu bëgg a gagner ci li nga xam ne moom la état teg muy commande publique na jéem a am li nga xam ne moom mooy formalisation vers la formalisation parce que nee naa même bu ñu jëmee ci industrialisation industrialisation benn processus boo jógee ci secteur de l' artisanat moom moo lay yóbbu ci industrialisation donc ci say artisan nga mën a xayma ndax man su may dem ci industrialisation dinaa def li nga xam ne mooy service de qualité maanaam ci sa xarañ teyu artisan ci nga mën a jublu ci lu mel noonu que ça soit ñi nga xam ne dañuy def la transformation des produits ñi nga xam ne tey dañuy jël métal bi utiliser ko ci yeneen produit ñi nga xam ne dañuy jël bois bi utiliser ko yeneen produit euh, filière cuir bi la même chose ñu <clears throat> ñu dem vers la vers l'industrialisation donc ci biir loolu lépp su ma ko jàngatee mooy yéen yéen a ngi ci point yooyu te sénégalais yi mën nañ leen xaar ne bientôt di ngeen ko di ngeen ci nekk di ngeen di ngeen euh, di ngeen ko liggéey dans projet dañu gëm ni Euh, l'industrialisation. booy bi nee na ngeen pause day dem jëndi ndékki mu ngi ñëwaat bëggul raté affaire yi. dans l'industrialisation de notre pays ce qui est clair mooy ça va forcément en tout li ñu gëm mooy l'artisanat est la base de l'industrialisation. macha allah tey Pape Sidi mu ngi koy wax sànq. mais uude bi defar benn paire ñaari paire ñetti paire d'ailleurs euh, souvent ñu ñu setaan la ngay promouvoir ay euh, lu jëm ci wàllu secteur artisanat ñu koy def baax a baax a baax effectivement mais tey bu ñu góor góorloo fexe ba accompagner ko en formation en formalisation capacité technique accompagner ko mu am suuf am équipement des outils de travail moderne mais kooku dina jógee ci dix quinze paires dem ci cent deux cent paires mën non seulement di jaay fii ci réew mi mais di jaay ci bitim réew et je pense que c'est ça le projet bu ñu fexee ba menuisier bi nga xam ne day def benn commande di liggéey benn buntu ñaari buntu ñu accompagner ko ci li ma fi tudd léegi ci perfectionnement ci ay outils yu moderne ci suuf muy ligne de crédit bi rek mu am ligne de crédit boo hmm. xamante ne nii très sincèrement dina ko mën a permettre au delà de muy produire benn ñaar ñetti bunt ñu mun fexe di def des productions en série di liggéey des centaines de portes parce que portes yu ñuy jaay tey yu jógee Turquie wala Chine wala yu demee noonu mais c'est des artisans ñoo koy def commerçant bi jóge fii dem Chine jënd ay conteneurs ñëw teg exposé ko di ko jaay te commerce buy liggéey kër dem jënd ci porte yooyu donc nañu accompagner nos artisans à ce que ñu génn ci euh, toltolaan bi fexe doon des vrais professionnels. mais loolu président Diomaye moo ko wax ñu tëj bax alaaji mu dem ak kii président Diomaye moo ko wax nguur gu bees gi premier ministre moo ko wax mais teg nañ ministre boo xam ne ak ay agents yoo xam ne tey ñoom ñooy gérer loolu. Mm-hmm. est-ce dina nekk ci liggéey parce que secteur de l'artisanat chaque jour dañ ko ciy dëxëñ wax lii ci président bëgg li ci ministre bi bëgg. mais est-ce que. faisabilité bi voilà ñoo xam ne tey ñoo nekk ci. parce que budget bi ñoo nekk ci ministères yi. ndax dinañ doxal lool ci diggante ñoom ak artisan yi. ce qui est important dans ce dans cet aspect là c'est à mon avis la vision du président de la République et de son premier ministre le président Ousmane Sonko xam nga tey artisans yi dañoo war a sant yàlla bu baax parce que gis tey ñu leen jiite ñoo xam ni avant que ñu leen di jiite même. dafa am ay action yoo xam ne dañ ko doon teg jëmale ko ci promouvoir le secteur de l'artisanat waa léegi koo nekkoon ci opposition di promouvoir la secteur bu yàlla doxee tey ba nga jot réew mi yaakaar naa loolu du leneen la ñuy waxati et je pense que actuellement ils son en veille te ñu ngi veille bu baax a baax ci li nga xamante ne nii moom mooy la développement du secteur te la sa déclaration euh, ci conseil des ministres bi def na je pense trois semaines wane na ko je pense que loolu euh, na ci xelu artisans yi daal euh, jàpp naa ni le secteur va changer pour le bénéfice des Sénégalais et du Sénégal de manière générale. je vais lancer l'appel tout à l'heure après euh, je voudrais aussi remercier monsieur Bilal Diatta le maire de Kër Massar c'est ah. mon ami. ah très bien. Euh, gis naa coow li yuuxu bëri na coow li mais après utalaat na marchand ambulant yi fu ñu ne. macha allah pare ku ci nekk mu jox la fukki junne ak juróom. Ah, voilà c'est pas mauvais c'est une euh, on ne peut pas faire une omelette sans casser des tout à waaye dafa am période boo xam ne boo ci tojee nen fekk ganaar gi ko nen jàkkaarloog yow. day dana la suppi mer bi yëpp. on comprend te dañu jëm période boo xam ne da lay bon waaw da ne lay mer daal. da lay bon dafa am benn daara boo xam ne. Uh-huh. Euh, xaw ma sama waa ji lu mu fa gis waaye nee na ma daara bi daal faw nu seetaan ko rek. Uh-huh. ca Kaffrine la nekk ban méthode la ñuy faral di jànge maa ngi ñi ñaan ñëpp ñi nga xam ne daara da leen a intéressé wala nitu daara lañ wala ñu bàyyi ko ci daara ñi mu defar nu lu jotaay bii ànd ci ak Papa ñu xool vidéo bi te dellu siwaat As Ndaw eh, mu tuddee ko maamam bi ñuy wax Alaaji Mor Faati Ndaw fii nag ñu ngi ko sos 5 décembre 2020 eh, barab bii la tànn ne moom moom la bëgg jaamu yàlla yi daje fi ngir jàng fi alquranul karim eh, mu nekk def ko ci biir Saalum waaye mu defal ko askan wi yëpp defee yaakaar naa ne bi ñu ngi si léegi dugg nga na xam ne du waa Saalum rek fi nekk mais def ko def addiye boo xam ne julli ñi ñëpp ñoo ko bokk sous bi ñu fi waa Gambie ñu fi amoon nañu itam ay xale yoo xam ne Mauritanie lañ nekkoon ah, ak Gambie Mauritanie ba waa dakaar Koungheul nga xam ne daal nekkul ne Saalum dong ñëw fi nekk waaye fi mu nii mën nañu wax ne waa Sénégal yëpp ñu ko ba Saint-Louis am na ay xale yoo xam ne foofu lañ jógee ñëw fii. waa daara di euh, organisation bi dafa xaajaligoo ci juróomi groupe euh, boo ñëwee rek ni ngay njëkk a gis nii mooy soo duggee rek da nga xam ne liggéey bu mel ni laaj na organisation moo tax fexe nañ ba. ustaas yi nga xam ne ñooy jàngale eh, toll nañ ci fukki ustaas ak juróom eh, yàlla def na ñoom dañ leen a beral seen këru bopp koo xam ne fa lañ nekk sécurité bi ñi ko yor itam toll na ci fukki nit ak juróom mais sécurité bi nag dafa am ñoo xam ne ñi ci ëpp ñoom dañoo mokkal alxuraan nga xam ne itam bu ustaas yi absent yi ñoom ñoo leen di remplacer ci seen xalqa yi eh, ni ki noonu it am nañ ay groupe yoo xam ne ñii ñooy fóotal xale yi classe bu ci nekk rek am na koo xam ne moom lañ leen féetale jëlal nañu emploi yoo xam ne moo leen di fóotal seen i yére niki noonu nettoyé bi um nañ groupe boo xam ne spécial chaque jour ñoom dañuy xëy ñëw di nettoyé daara ji niki noonu am na docteur boo xam ne mooy saytu wàllu wér-gu-yaram xale yi waaye am nañ koo xam ne it ñoom waañ bi ñoom itam dañ leen génn biir daara ji nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu lekk wàllu naan lépp loo xam ne moo jëm ci daara ji waa ci loolu daal ci la ñuy dox suba ba ngoon ñu dem dal ji bu ñu xëyaan nekkaat ci lu mel noonu rek ba. waañ bi ah dañuy xëy ñun ñëpp ñu rek ñëw rek bokk doole rek jàppalante macha allah wax dëgg yàlla dara du tardé moom dañuy yàq heure. par rapport daal du tardé daal heure bi benn yoon du tardé moom macha dëgg yàlla. wax dëgg yàlla moom daal lan daal léppam maanaam léppam daal mooy xale yi Kaffrine yi jàng parce que yéen a góorgóorlu suñu màggee réussir am fu ñu dimbali seen i waajur chaque jour tànk bu lay taxaw ndax xale mooy mu ëllëg mooy nekk mag te ku kenn ku ne mu la ñu fas ngeen ne sa doom màgg ba sa doom jàppale ëllëg te léegi li ko waral yëpp njàng la ndax xale bu jàngut yaruwut manul nekk société bi ndax société bi lan moo koy doxal yar ak premier ba nag mooy yar ba deuxième mooy jàng ba bu jàngee te yaruwut itam du dox ndax dañ leen di jàng dañ leen di yar. parce que conditions yi ñu nekkee nii néew na nga gis jàngalekat alxuraan boo xam ne nii ci Sénégal nekk ni ci conditions yu mel nii. parce que li ñu miinoon ci daara ñi nga xam ne ñooy nekk xale yi ñuy jàng dañuy tumuranke duñ nekk ci condition yu baax di wër di yelwaan di taxawaalu yooyu lañ miinoon ci daara bu njëkk mais fii boo ñëwee ci daara ja xale yi nga xam ne ñooy jàng nekk nañ ci condition yoo xam ne suñu xëyee dem jàng suñu wàccee ñu ngi leen préparé néeg yoo xam ne am na ventilo am na kilim am na lépp te seen néeg itam am na ñoo xam ne suñ génnee ñam ñooy ñëw defar néegi lalaat seen lali taala leen cuuraay defar leen lépp kon xale yi ñu ngi si condition yu baax mais ustaas yi jàngale itam daanaka ay ndongo daara lañ jaar nañ si daara am na ñoo xam ne ja kokki ñi si ëpp daanaka kokki lañ jànge lañ jàngee am na ñoo xam ne génn nañ dem Égypte jàngi ba am master 2 ku mel ni ustaas mii nga xam ne am na master 2 am na ñoo xam ne eh, dem nañ Arabie Saoudite am na ñoo xam ne itam dem nañ ba Mauritanie am seen li seen licence ñëw am na ñoo xam ne itam demuñ Mauritanie mais si réew mi lañ jàngee ba am seen diplôme après di jàngale si daal ji kon fii ñu fi nekk ñëpp ay ustaas yoo xam ne ñëpp borom xam-xam lañ ñii ñii dem nañ Mauritanie ñii dem nañ Arabie Saoudite ñii dem nañ Égypte ñii ñu ngi Sénégal waaw kon nag sant yàlla bu baax ñu fi nekk ñëpp borom xam-xam lañ ñoo xam ne ay borom lijaasa lañ. waaw man sama rôle ci biir daara ji mooy wàllum set ndax nit yaakaar naa mënoo nekk sans fi nga nekk set moo tax as jël responsabilité bi nga xam ne mooy wàllum nettoyage bi du jëm ci set bi xale yeeg oustaz yeeg ñëpp daal koy féetale ci sama loxo ma ànd ci boo xam ne bu bu bu man li ñuy def la. en plus bu bëgg li ñuy liggéey la ndax tey ku xool ki nga xam ni mooy euh, directeur bi bi mu ñëwee ci daara ji bi mu vérifié dugg fi mu war a dugg lépp li mu saytu mooy daara ji daal wàllum cet gi moom ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax. waaw yomb na yombul ndax xale kenn ku ne xam na xale xamul dara ci xale euh, en général lu bari mooy suy nekk fi muy nekk day bëgg di xëcc di fo di taqal. di def lu ko neex waaye ñun dañuy ànd ak ñoom ci ci ci ci ci ci ci xol bu sell ak bëgg li ñuy def. idée bi moom fi mu jóge euh, mooy demoon jàngi alquran ba mokkal ko di ko jàngale euh, sama yéena moo doon toog di jàngale waaye yàlla dogalu ko euh, ma nekk ci leneen di yëngutu waaye suma sëriñ ba Maulana Alhaji Ama Saxir Lo radiyallahu anhu dama mës a toog di waxtaan ak mu ne waa as ma naam mu ne ma yow xanaa boo màggee day da nga jàngale ma ne ko bëgg naa jàngale de bëgg naa ko de bu ma màggee bëgg naa toog di jàngale mu ne ma yaakaaruma ko moom Alhaji Ama Saxir Lo radiyallahu anhu yëf yi di dem di dem di dem ba jamono. E, ma jàpp ne daal nit ki soo demee jàngi ba ñëw war nga jàngale. boo mënut jàngale yi tamit toog jàngale yi tamit war nga dimbale ay nit ñuy jàngale jàppale ay nit ñuy jàngale taalibe yi rek mën nañ quatre cent te bokkut ak ñi leen di jàngal eh, loolu daal mooy foofu la idée bi jógee roy ku baax roy ñu baax comme ni ma la waxoon rek ku mel ni alajama saxiloo moom laa ci roy ku mel ni sëriñ Saalih moom laa ci roy ku mel ni suma maam bi jur suma yaay yi tamit jàngalekat la woon ki ko juróon it jàngalekatu alxuraan la woon alxuraan daal moom jàpp naa ne jàngale ko moom dama ko donn bu ma ko defee dama ko donn bu ma ko def loolu la donn waa méttiwul parce que <clears throat> damay wax ne alaaji mastaxiloo radiyallaahu anhu boo xooloon man bi ma fay jàngee ji li mu yoroon booba mat na ñaari junni te it léppi taalibe yi moo ko méngoo woon mais ku ne xam ne ne yàlla moom ay mbiram moo koy doxalal boppam te téere bi yàlla moo wax ne innaa nanu nasal na sikra wa innaa lahul haafisuun ñoo ko wàcce muy alquran te ñoo koy aar ñooy aarit ñi ko méngoo moo tax nga xam ne du métti parce que wërsëg yàlla sama borom moo koy joxe te jàpp naa ne daal bañ ko commencé ak léegi daal yàlla nattooguñu ñu xëy añuñu wala reeruñu loolu daal ñu ngi ciy sant yàlla waaw te it wax dëgg yàlla kenn du yelwaani kenn du génn daara ji ubbi nañ ko dañ fiy jàngale ngir yàlla ak yonent bi ku njëkk a ñëw jëral ku ci topp jëral ku ci topp jëral ba keroog ñuy arrêté وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما ma ne daara ji ndax amul place pour man ok daara ji dañu noo chaque jour yow lii daara. <laughs> Eh, kii yow Kaffrine seen daara bi lii du daara waay. daara bi ah. ah lii colonie de vacances en temps ah, macha allah daara ji moom. ah man tam bëgg naa dem fii de. ute nag daara yu bëri yu nekk fii ci réew mi. duñ jël bakka. Ah, dañu jël makka yi. wax leen ne leen bind mu ñu mu ñu ñu ñu ñu oola. <laughs> waay nga dem xaaral ma jël kenn may ko juróomi junni ci daara ji waay. asalaamaaleykum 88 628 17 27. 88 628 17 27 am sa maa ngi en direct ci télé bi nga may bëgg a liggéeyloo di ma wax ay waxu live li may wax ni waa réew mi yëpp a koy dégg xaar ba ma paree dinañ waxtaan ci programme bi bu soobee yàlla euh, mani 88 628 17 27 mbokk yi mosuma yéene dara man lii may waaj a wax nag dara du ci law ba téq ba mm-hmm. waaye bokk ak ñoo xam ne réew mi gis naa leen ñuy dund coono goo xam ne bëgg naa coono googu teggeeku leen mhm. mooy suñu mbokk uude yi defar dal dañoo yëg ne senegal at mu jot ci jamonoy tëbaski dinañ importer lu war a tolloog quarante cinq milliards seede yàlla ak yonent ma jël ko balaa may dem maa ngi ñëwaat ci loolu naa ñëw maa ngi ñëw allo allo soxna si na nga maa ngi fi si jàmm foo dëkk maa ngi si jàmm Touba laa dëkk. Touba yaa woote woon kero maa woote woon sànq. waaw yow moom xanaa chaque jour day gagné yow. yow yow yow man chaque jour da ngay gagné man loolu dafa maa jaaxal. déedéet léegi laa woote woon mu dagg. non non woote woon nga gagné. non non woote woo ma de. noo tudd sànq Mariama Guèye. Mariama. Guèye. Mariama Touba. Uh-huh. Mariama Guèye Touba. Touba laa woote. Euh, ñaata ngay ndekkee vingt cinq mille baax na. man cinquante mille ngay ndekkee yow de moom mënu ma laa jox ndekki kon maa ngi coupé ba jamono neex. ah déedéet bul ah, kon bàyyi ma jox la vingt cinq mille yi ma yor. wootee ba naka ni boobu maa ngi. waaw mais bàyyi ma jox la vingt cinq mille yi ma yor rek yow. vendredi damaa woote ba sonn. ba vendredi dangaa woote <laughs> moo fi nekkoon di xulóog beneen oustaz bi lu ma ci mën loolu. <laughs> <laughs> waaw wuy ma waaw wuy ma waaw wuy ma xoolal damay bañ mu daggaat damay bañ mu daggaat damay bañ mu daggaat bàyyi ma jox la vingt cinq mille yi rek. waaw Fatou Seye ko rek. waaw waaw waaw dimbali ma rek yow balaa nga muy daggaat fii da ngay xam nga lii laay waxat. waaw yokku ko rek sëñ baax. ko rek. waaye yow ñaar juróomi junni baax na. Ah, man su ma ko joxee vingt cinq mille damaa war a mayaat ñeneen. wax dëgg yàlla non non eh, yow man vingt cinq mille laa waxoon. may ko vingt cinq mille jox ma yàgg naa xam naa ne yàgg nga fi mais dimbali ma ngir yàlla ma jox la vingt cinq ngir yàlla ma may la vingt cinq. ma ngir yàlla ma may vingt cinq mille. waaw yokk ci 5000 sa muy 30. ma yokk ci 5000 kon waaw yow mën ngaa waxaale de. <laughs> yow dëgër nga loxo. ay yow ñii yónnee nañ la 25000 ba pare. ñii ñoo gaaw xool yónnee nañ la 25000 bu yàgg. saa tuuba la 25000 rek. yónnee nañ la 25000 yow bu subaa boo woote waatee dinaa la may 50000 moom jot na ko mu ngi tudd Mariama DT Touba euh, vous avez reçu numéro bii. mus naa ko fee jox numéro bii mooy trian mariama mii i kar attends attends attends mariama moom la 34 40 pa wërsëgam la pa wërsëgam la nekk tamit 34 40 la kii moom 63 04 la ah du moom waaw may ma rek ma am affaire bu ma bu ma leeral. leeral bi jàll léegi léegi. waaw parce que boo gisee daara ji moo dañuy pap gis nga yombul fi réew mu toll ah. jeexul des na. 400 400 voire 500 ndongo. nga jël ko sa responsabilité daara ji fàttali amul lenn loo xam ne war na ko ak parent bi nga xam ne moo fi indi doomam. kenn du fay amul dara amul daara amul fay amul dara amul lii déedéet amul loolu sa doom bëgg na jàng demal mu jàng ba pare te bu paree nag attention am na beneen école moo ne si ginnaaw école xam ne da ngay dal sixième euh, cinquième quatrième def BFEM après kon na si njàng ñaari parti la ko def boo paree si alxuraan bi nga dem ci français bi lépp moo ko jël en professeur yi fa nekk sax moo la jël en charge pap amul lu waroo kenn donc di gërëm baax a baax El Hadj Assane Ndao Ndoukoumane ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ne si daara ji ak ñëpp ñi nga xam ne amaana ñoo yewoo Kaffrine macha allah. lu rafet la yéen a ngi def affaire ndawen nag. waaw ba tey émission bi na lool. ba tey amul problème lu baax la rek dinaa jël ay décisions lu rek moo tax ñu defar ko incha allah. alaaji merci d'être venu euh, monsieur Babacar Varor. mais c'est moi qui vous remercie. Euh, remercier aussi sëñ Dame sëñ Pape. Euh, waaw remercier leen vraiment ci liggéey bi ngeen di def au la de l' invitation nous suivons de très près. Mm. mais li ma ci gën a intéressé c' surtout par rapport à la promotion du secteur de l' artisanat et des artisans de manière générale. peut être dinaa la ko dinaa la ko wax tey bi ñuy taxawal mouvement bi ci wàllu filière yi dañu ci créer benn filière bu ñuy wax invention et recyclage. et je pense que loolu bu ma amee approche boobu. kii da cee liggéey bu baax a baax. invention maa ngi koy maa ngi nag war na war na xam ne. Euh, non non non koy <laughs> wax koroog bi ma tasee ak sa waay parce que xam nga dafa am ay artisans yu bëri ñuy créer ay ay mbir yu bees di recycler alors que du am suivi duñ leen topp donc ñu ñu jàpp il faut mu am benn cadre boo xam ni ñiy créer ay mbir yu bees muy ay xale muy artisan ak ku mun doon fu mu am cadre boo xam ne ñu leen mën a permettre ñu suivre leen au moins ñu génn ci benn ñaar dem ci benn production en série comme ni ma ko doon waxee sànq. maam Sayou Aliou Babou Ndiarème boole naa la ak Pam Dim na la jox bu soobee yàlla Serigne Mbacke eh alaaj Sall Ngol Ngol tey ñetti daamine la am. daamine ici ici <laughs> ici. li ngay jaay for na de père dégg nga parce que ay ni ñu fa def. dèjà. 32 kilos yam euh, drogue bi ñuy xeeñtu lañ fa jàpp. 2 milliards et cetera. waa mais man drogue bi ci réew bi lan la. mais mais gars ngi liggéey parce que ñu ngi jàpp. mais drogue bi eh kii ku bëre